gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jëggal di fàttalante ak bokki jullit yépp ak fu nu mën a nekk benn ci ponk yi nga xam ne miin nañ ko lool lu tax ñi koy fàttali yépp di ko fàttaleek fàttaliwaat day mbir mu dëkk ak nun te nit ki lu dëkk ak moom bu yàggee da koy miin te bari na lool bu ko nit miinee nam ca war a ñëw nam ca war a jariñoo dëgg dëgg du ci jariñoo noona la ko waral mooy daf ko du jox cër ba mu ko war a jox te mooy julli julli nag li tax mu mat di fàttaleek fàttaliwaat at yii ñu weesu li ñuy wax faatu daa bari lool yu yu bette lool daana bari naka jekk moo ñu xañ ay maam yu bari waaye dafa rawati ci jamono fii lañ toogoon démb rek wala léegi lañ tàggoo wala léegi la doon wax ba yàgg mu ne cel te ginnaaw bu nit ki bàyyi ko fii war a néegi bar sàq bar sax ñi ci des baba yàlla taxawal bis penc li ñu koy jëkka laaj mooy ak julli ginnaaw moom li ñuy jëkka laaj nag su jagee yi ci des yépp mën naa jag su melee neneen ñu tàmbalee xool benn par benn seet gu yeex lu mat di sonne la moom nag soloom ñi ci fàttali ñu bari fàttali nañ ko ba tàyyi ne mooy benn ci ponk yi bi nga xam ne yàlla yónneewu ci yónent bi sallallahu alayhi wa sallam sant ko ko waaye daf koo woolu ba mu agsi ñoom ñaar daal kenn ñetteelu leen kon boobu lam ko lam la muy tekk rek bokk na ca ak amam soloom loo xam ne yàlla yónneewut kenn lu dul demal woowale ma ko ndaw la nekk mu wax kam woolu woon lam koy wax julli bokk ca jox na ko cër boo xam ne geneen jaamu yàlla amu ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon ndigal li ab jullit di jëkk a déglu war caa gaaw jëm gannaaw bu waxee laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah mooy lagg julli ji gaaw la ca topp gannaaw bu waxee laa ilaha lii wane ne la mu waxoon dëgg la ci moom mooy waxtu jot mu julli ko waaye nag su fekkee jëmm daa am ay yax am ak doon yaram aku yax ak yax yuqu gane ci biir yaram wa ci biir yax ya ba tax yaram mooy dund mooy nit ki daananteeg bakkanam ba luñ ne ko yàllaa ko digle rek mu gaaw jëm ca lu metti la nag léeg-léeg mu fokk fekk nit foofu danaan nañ xaar tuuti su ne nañ xaar tuuti nag bu ko mënta ñàkk def na mu koy defee mën naa am mu defee ne julli na te fekk julliwul bokk na ca rek yu ay benn benn yoo xam ne julli gum amul moom mën naa jàpp ne julli na waaye charia mii nga xam ne day àtte li mu gis képp bàyyeeg yàlla la ca des du ko tuddee ak julli te ginnaaw moom la ñuy njëkk a seet tegale moom ba jiitu mooy jub rek ya ca topp topp ca mbokk yi nit nit léeg-léeg dana ne bëreet rek fekk gaa yi taxawal mu daal di malaab malaabal loxo laal loxoom ci su laal ab yëm rek daal di taxaw ni ñaawam xamut waxtu wu ñuy julli xamut lu ñuy julli tane na sax gannaaw nangu na ko def waaye julli dafa laaj waajtaay woo xam ne da nga koy teelu ànd ak sa sago ba ci jëkk mooy bi may lim léegi limaliwuma ko mooy fexe ba li muy lekk di baax li muy lekk doon lu lew lu ab jullit war a lekk mu lew ba noppi ab jullit war ko lekk mën naa lew te fekk nañ ko amee baaxul su ko defee nag fa muy taxaw it da cay am solo fa muy taxaw di jullit daf cay am solo ndax bu bëggee jullit te amul fu mu taxawee du mën a julli foofe it ak i barabam ca mat a bàyyi xel doonte ku lal lu set mën naa taxaw ca kaw waaye barab ba itam daf cay amaale solo ku bëgg a julli julli guñ nangu waaye ni ma ko junje julli nit ki da koy waajal ci sagoom xam ne jaamu yàlla gu tedd la gu gu am solo goo xam ne faatoo ngi ñëw ci kanam lu mu yàgg-yàgg moom lañ koy jëkk a laaj loolu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la awalu ma yusalu anhu al abdu yawm al qiyama assalaa su ko defee bu wa jaaree fa mu war a jaar mu sol lu laab lu set ak lu laab nag du benn daa di taxaw fu laab taxaw fu set ak fu laabe du benn mën nañoo bale ba mu set daa di lay te fekk mbire nga ca suuf soo ca pàkk ba su ko defee nag mu jublu xibla xibla am na ñoo xam ne defuñ ci benn jéego buy tax ñu mën a xam fa xibla féete te bu bu jub bu jullee jubluwut xibla baaxul loolu nag aw lay damm na ci léegi ndax bari na téléphone yu nit yor yoo xam ne mën nga caa fexe ba xam ca fa xibla di fare saa foo mën a nekk da ngay dégg mu ñëw ca kër rek ne leen ana fu ngeen di julli fu ngeen di jëm bu ngeen di julli laaj ko ku mu mën a doon rek mu joxoñ ko fa mu koy joxoñ yoonam nekku ca mu defee ne julli na te fekk julli ga jaarul yoon tegale ca ba jiitu kon kenn ku ci nekk war naa fexe ba xam fa xibla féete gannaaw bu mu jaaree fi ñuy jaar taxaw fi mu war a taxaw sol li mu war a sol fexe ba xam fu xibla féete xibla ak penku nag du benn am na ñoo xam ne penku lañ lay joxoñ rek te am na faf seen xibla du penku nu muy jubloo xibla nag mooy dënnam bi jàkkaarloo mag ak kaaba ga buy toog jàkkaarloo mag ak kaaba ga bu sëggee soo jaarale woon dara ci ginnaawam mu jàll mu ne rëng ca kaaba ga wala moo jublu xibla buy si jóot it loxo yi nga xam ne mooy jiitu ci mazhab bi ñu nekk loxo yi mooy jiitu yoxo yi yoxo yi itam fexe ba ne mag jëm xibla tànk ya topp ca cati waaraam ya topp ca yay samp ca tànk ya waaye xam waxtu julli it lu am solo la dëkk bii nga xam ne dafa bari ay noddu ak jàkka bari na ci ñoo xam ne boo leen laajoon waxtu wu ñu julli tisbaar walla takkusaan duñ ko xam ndax noddu gi la ñuy topp bu ko daan coupé nag moo tax fexe bay xam waxtu julli saa su nekkit loolu awlay mën na ca damm ci wër koo koy laaj ndax téléphone yi xew léegi mënees naa fexe ba di ca xam waxtu julli rawati sax saa su waxtu jotee mu nodd lu mat a fonk la ndax jullee waxtu yu jotagut bu defee li kiy julli yi def lépp it tuddagut julli rawati mu dem ba waxtu wa jàll ba jeex tàkk mën na ko dabi de waaye nag dañ koy duñ ko bàyyi mu dem noonu ndax dara yàlla du neen faw ñu am lu ñu koy topp loo xam ne dañ ko koy waññiwaale ci bu ñu wañ bu ñu xool julli ga ba xam baax na am de waaye lu la neex solit déedéet daa am ci yaramu nit moo xam muy góor wala jigéen loo xam ne dañ ne bu bëggee julli moom munta ñàkk mu muur ko ba mu ne ba mu ba kenn du ko gis loolu moom yomb naa wax ku solub xaftaan daal moom muur na léppam sol xaftaan sol tubay muur na lépp bu solee forog it sol tubay teg ca muur na lépp tubay yu mën a doon nag jigéen moom dañ naan buy julli xar kanam baag yoxoye kese waaye bu julli bu julli wutit waaw bu ko tàmmee bala muy julli buy julli du ko mat a wax waaye fexe bay laab ci julli gi tam laab laab nag bokkut ak cat moom itam li ma ko waxe woon ci barab wala ci li muy sol daa am lu sharia ne mooy ak laab mooy su waree sangu mu sangu ji su waree jàpp mu jàpp ak ndox mam koy defee ndox mu set wicc ci niñ koy jàngalee amul xet xeeñu dara safut dara melut nen loolu itam mënu ca ñàkk ndax sëriñ bi bind na ci benn téeréem bu muy jàngalee atteb laab waaye ba muy jeexal daf ne ku ne laab bokkut ci julli moo julli bokkut ci diine ñooy am ñooy am atte ndax ginnaaw bu laab amul julli du wér kon laab ci julli la bokk idi salaatu la tatimu abada illa biha wujubuha qatan bada waaye bokk na ci yi nga xam ne day tax julli gi de su ko jàppe ne waa ji julli na itam donte moom jàppe na ko ko mooy muy jàpp rek dégg xadis bu yonent bi di waxee ne sallallahu alayhi wa sallam ku jàpp te julliwut doonte ñaari rakka la bëccngeel na ma te ku ma bëccngeel yàlla mën na ko bëccngeel bu tuubul yàlla ñu ci yàlla musal muy def saabu jàppee rek julli ñaari rakka fi mu ko defee nag far fàtte ne tusbaar jot na rek mu daal di koy soppi tusbaar wala takkusaan jot na mu soppi ko takkusaan déedéet kii julli day xam waxtu yi muy julli mu doon mu fas ko ci ab xolam bu ko soobee mu wax ko ndànk kenn bañ koo dégg mu xam ne tusbaar la julli wóor na ko ne julli woon na suba wala takkusaan la julli wóor na ko ne julli na suba ak tusbaar jot tey te démb faatu ca benn waxtu loolu tam lu ci mat a bàyyi xel la wala mas naa am koo xam ne sëñ Murtada Mbakke daa wax ci mbooloo mi ne man damay wàññi damay wàññi de ñaari rakka lay julli su ma noppee na ngeen àggale ñu ne waaw waaw am ñoo xam ne dañoo féet lànk ne fu mu yam fa la ñuy yam ñoog caag nag waaye wax na leen lam leen war a wax def lam war a def am na man kay foo yam fa laay yam loolu itam kooku xamul li muy julli lu mu doon day toppandoo kese bokk yi ginnaaw par kenn la yàlla di jël par kenn moo yëg mettitu ndee sëriñ bi wax na ko fa ay fan yii rek par kenn la ñuy denc par kenn la ñuy laaj te julli lañ koy jëkk a laaj julli du ay caaxaan waaye julli ba sëlmal ñu ne ko waaw gan julli nga doon julli mu ne ah man kay dama koy def nii rek su ma noppee joxe ko addiya xaw ma bu mu doon loolu mooy amut fasu ca dara te moo ne ñim ki mu koy jox addiya day daana def loo ko jox mu ne loo ci fas loo ko wax mu ne loo ci fas am na bis ku ne ko fasuma ci dara moom fasu ci dara kooka mu yónni ko ndiimo ak gu wëñ ak pusa ne ko gaaral ma lii muy gaar yàlla fàttaloo ko fas catul wëñ ga fàtte na ko daal waaye am njàngale la mu borosa boros ba mu àgg mu war a mu daal di bëgg a tàllal fu pusa ba jaar wëñ nga jaar fa mu ne ko mu ngi noonu di def loo xam ne fasu ca dara nii la mel da ngay defee ne mboros nga ba àggal boobu boo noppee wëñ ya àndandoo nga la nga doon gaar sotti waaye dara te mbokk yi waxtu dafa gaaw daa gaaw gaawaay boo xam ne lu ci waay def rawatina muy ak jaamu yàlla na fexe ba sàmmoonte rek nañ ko diglee rek jaanam wàcc moo tax ku ci fas yéene bu noppee joxe ko addiye julleegul wala musalmal ne joxe naa ko addiye it fasutoon dara day defandoo ni nit ñi képp addiye boo koy joxe da ngay joxe loo xam ne yaa ko moom da ngay wut lu lew loo xam ne ba nga koy fagg lew na ba nga moom ko nga sa ko joxe addiya bu la neexee waaye kii ne ci sa kanam di la jiite yaa ngi moom yéen ci bokkum àtte dañ ko ko sant sant la ko kon boog ab jullit war nay waajal laaj yi ñu koy laaj gannaaw bu faatoo bu ay caaxaan kenn ku nekk xam na ci juróom-benn weer yi par kenn ku ne xam na ci kum xamoon ku faatu te du ko gisaat mukk kooku moom mbiram leer na ko naññ te mënut a wax ak ñii fi nekk tey te ko dem du ñëwaat su ko defee fi seytaane jaar danaan kii li muy wax kenn mënu ko te moo ne nit a ngi def lu ko gën a metti fuuf bu fekkee taxaw di julli ak sëlmal sëgg taxaw ba mu yàgg mu sëgg ba yàgg mu rukkoo ba yàgg mu sujjal ba yàgg mu jógaat toog jógaat am na ñuy jàng yoogaa mooy fexe ba sa cat tànk yi tase ci sa ndonga lem yaramam bi nu mu ko neexee loolu jullee ko gën a yomb fuuf wala mu bësanteeg aw yaramam ba ne tàyyi ab birig mu xar ci digg ba xar wu jekk loolu it jàng ko ba man ko jullee ko gën a yomb fuuf mooy def tànk ne di dox ci naaj bi it foo jëm ne du ma fi def du ma sol ay dàll barab sàngam it jullee ko gën a yomb fuuf ëpp ko ab yool ya cay topp topp ca ba mu ne gañ su ko defee kon liñ ci bëgg a wax rek mooy diine yàllaa ko yónni ay yonentam ya jiitu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk ñëw jël ca la aw xeetam àttan ba ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee mu mat sëkk mu indi yépp yi gaa yi doon indi julli mi bokk ca bi ko yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónnee wut ci moom sant ko ko waaye dafa woolu yonent bi nag nekk gàll nañ ko ci góor ak jigéen gu ànd akum xelam te mat jigéen bu dee jigéen wala mat góor bu dee góor li fekk jigéen amul ngànt su ko defee nag di ci wéyee am xel ci diine njuumte mënu ko weesu lii daal nii laa ko gise ak ma jàpp ne bokkut ak diine lu yomb la bi ñu ko yàlla yi laata teg xool na ba xam ne luñ man la la yukallifu llahu nafsan illa wusaha waaye nag su ko tegee fekk mën na ko laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat su boobaa nit ki moo yor tegal gu yem waaye xam na ni du la ci war naa xam ne du la ci suñu borom lu mu yàgg yàgg yàgg ak lu mu topp topp bakkanam ak lu ko mu xelam doy doy doy doy doy na ko wóor ne moom bu demee du ñëwaat fii moom fa lay toog xaar na fa suñ maam aadama di xaare ak ña ca topp ña ca topp ba ñu mujj faatu tey jii su ko defee nag yàlla door a woote ci coobareem ñun ñëpp ñu daje waaye balañ ca àgg mën na daal tàmbalee xam awwalu ma yuxaasabu te sëñ bu mag bi jàng na ci téeréem ne yowmal qiyaama ñaar la idil qiyaamatu qiyaamataani suxra wala suxra mamaatu kulli ma insaan wa baadaha nafqu mooy yowmal qiyaama atte atte daal atte bi yàlla atte nit mën naa doon ñaar ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy bu faatoo rek bañ koy laaj mun ko rek nakir di ko laaj yonent bi nee na julli la ñuy jëkk xool ci moom gannaaw julli la ñuy jëkk xool nag te ñi faatoo gut nañ ko jox wàllam mbokk yi guddeeg bëccëg ñaar fukki waxtu ak ñeent nga jël ci ñaar fukki minute ak juróom kepp muy juróomi juróom lu yomb la yàqalul kenn dara te it boo ko defee ba noppi buñ ne la foo ko teg da nga amul ay yàlla ko digle yàlla ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sëriñ Tuubaa daa ko def ma def ko sa jaan wàcc nga dem ci yeneen yitte yi bu gasaatee fu mu la fekkaat su fekkoon ne dañ ko tënk ci jàkka yi kese kese day metti lool waaye yonent bi moo ne suuf sépp jàkka la ci yéen na fexeel daal ba jublu xeb la rek fa nga taxaw laab li nga sol laab nga laab yow gis sa jëm boo waree sangu-sangu boo waree jàpp-jàpp waaye nag seytaane moom mooy koo xam ne kii du bàyyi kenn dem dalay teg nattu nangam kenn mënu ko daa metti ba noppi teg loo xam ne moo gën a metti te doo ci am ak pay yàlla nu yàlla defal dégg ak topp te musul seytaane ak pakkam te saa su nekk mu duñu xiir ci jëfe ndigalu suñu borom yi yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin